asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey nag maar ñu ngi Rufisque dàngu la ñu toogal doomu dàngu xam nga dàngu moom ab quartier la ci Tëngéej ñu toog mbër mi tudde boppam quartier ba muy doomu dàngu champion maa ngi lay bëggee waaw mosi bilaa bismillah inna wali yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sangu sang yi di sant suñu ñaari waajur bu baax di ñaanal suma waajur bu jigéen fi mu suma waajur bu jigéen mu yàgg fi lool lool te di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram des di suma waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii di ko ñaanal aussi képp ku waajuram laaxu yàlla na yàlla nangu ñaani di ci jiital sama wayjur bu jigéen moo ngi ci suuf yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom bépp julit barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doomu dàngu mm, mu mel ni kañ nga mujj a bëre maa ngi mujjee bëre le 27 26 juillet maa farouge 2019 waaw 2019 nga daan waaw ba nga ci waatee ba tey kenn contacté wu la si ñoo ngi ñuy wax ay combat quoi mais ba léegi dara aboutir si quoi bi ngay bëri ak Farouz yaakaar naa kera parce que na nga jóge ci TFP bi def naa ak ñaata combat bi ngay génn ci TFP bi. Hmm, trois combats. ñaata victoire. deux victoire benn défaite. ku la ca moo si daanoon. ok waaw yéen ñaari njëkk bëri ci TFP boobu mu daan la. waaw nga jóge ca. bëree sox daan ko. waaw bëree ñax jóge ca ñëw jël Farouz. daan ko. mel ni kon dynamique bi macha allah yaa ngi ci dynamique bu neex. waaw boo xoolee maa ngi ci suma trois derniers combats yëpp yàlla suturaal ma ci may ma ci ndam. Mhm. waaw. léegi nag bu ñu ci jógee dox nañu yeneen combat yàgg ñan lañu doon dox. bon am na benn promoteur bu doon dox suma combat góor a ba léegi ah Fallou aussi doon na dox suma combat maak euh, Wuli 2 xam na beneen promoteur bu yor sama combat mais ak Seygun ma xaw ma kii booy boobu nu mu tuddati xaw ma booy la xaw ma grand la. Eumeu seen Eumeu Sène junior. nga bëgg def bu euh, Eumeu Sène junior est-ce la mag. kon bàyyil ma def ko booy amul problème. mu hmm. hmm. mel ni kon ñett ñooñu yow ñett adversaire yooyu bu ci gën a. non ñooñu ñu ma limal ñëpp amul kenn koo xam ne tey jii son suma soxla la damay bëreek moom mais làmb xam nga leen moo fi nekk xarit dangay def man dama def man fin combat laa def 16 victoire. waaw mais ñooñu ñooñu ñu fa lim muy Gora Sock muy Wuli De wala muy Eumeu Sène Junior est-ce que da nga leen raw ci làmb yow tamit. fuuf. foo teg ne yaa leen raw. jëlal suma palmarès nga teg seen palmarès rek. ne nga vingt combats nga def seize victoires quatre défaites kon foofu nga teg ne yaa leen raw. cest à képp ma siy bëreel. la baaxoo a yem lépp lépp lépp bu ñuy bëri. am na si làmba ji. lem képp ci palmarès. combat choc. parce que yi ma fi limal yëpp amul benn boo xam ne si man combat la si man. yaa góor a soog du soog. non nekkul soog si man. góor a soog gis nga ko yow ak dynamique bi mu nekk ba daaw xay na mu ñàkk ci mook Tyson 2. kon jeex na. Ah, mais dafa lool lool mook làmba ànd. non da ngay nekk si dynamique victoire. wala nga am tolof tolof daanu. mais pourtant ba mu booba mu jóge ci géew ba ko jox ndam recours lañ ko gagné. non kooku xamatul ma sori si moom. parce que yow leer na la moom ñoo waroon bëre. yow da nga jàpp ni góor na ma ba daanu. dangu yow foo teg li yow Gora Sock mi nga gis mu taxaw yow Gora Sock boo taxaw yow yóbbuloo ko dara nga ne da laa ragal. parce que suñu combat ay promoteur dañ ko def bëggoon ko. Gora Sock ab ragal la kon pour yow. bu mag a mag sax parce que su ko bëggoon. su ko bëggoon daaw. kon heure bi kenn waxatuñu ko. deux ans ni suñu combat man ak moom ñoo ngi koy wax te wax dëgg yàlla daaw pare woon naa pour bëreeg moom. pare woon nga pour bëreeg góor. kon daal pour yow moo daw. non bu bëggoon combat bi day taxaw daaw parce que ñoo bokkoon promoteur bi ñu tëgg promoteur bi dafa obligé ku si nekk mu utal la benn adversaire waaw su d'accord daaw ñu bëri ñoo bokk même journée bu ñu bëri man ma daan moom yàlla di ko defet donc su ko bëggoon kon taxaw na. léegi ki ci des moom yaakaar naa du ragal laa foog. wuli de. waaye déggoo li ma la xanaa li ma la wax man lu leer la képp koo xam ne man maa lay may chance suñ ma fayee lu ma ko jaral ma dem bëri. loolu mooy maanaam yow booy maye essence dañ lay fay xaas bu ko jar. ah booy maye kañ da koy jar képp koo xam ne laa la wax ma buntu mu ubbil bépp promoteur képp koo xam ne maa lay may chance suñ ma fayee lu ma ko jaral ma bëri. mais wuli de la wala du ragal. non la parce que moom. il paraît que dégg naa mu ngi waxaale suñu combat donc moom gëree la quoi. maanaam ah wuli de day daaw day comme site bi mu daan nañ mooy bi dàq ci arène bi daaw mook mook kii mook ambulance bu Thiès. ñooñu su ma su ma bëree waa tax ñoom cest nu mu demee woon lay demaat rek. nu muy demee damay sëq sànni rek. noonu lay demee ci wulli nga sëq ko sànni. wallaahi agim bu combat bi taxawoon ma sëq ko sànni ko parce que dara boolew ñu ci làmb. dara. ki di ama xëy na année balance moo neexul rek. Hmm. waaw mais te loolu ngay bañ a def daal pour yow. non su jëree ñu def ko aussi dañ koy def parce que amul dara lu ñu yàkkamti parce que ku def vingt combats seize victoire man tollootuma fu may sacrifier suma carrière. ama seen senior mi nga tudd léegi. nga ne paa la xaw ma booy. kooku nañ ma fay xaalis mu bëri. mais paa nga ko jàpp yow. Oh, Eumeu Sène ah xam naa ne moom mag de ah, xam naa ne moom mag. foo teg la mag da ngaa xam ay kayitam. man du ma du ma sori yooyu quoi parce que yooyu yëpp ay ay ay détails la rek moo ma mag wala maa mag yooyu ay détails la. daan na xale bu jafee daan de bu ñemee lool la xeexal bër ki dem bëreeg moom bëri bu metti daan ko muy buur siin. waaye làmb noonu la. yow nga yaakaar ne kooku kon nooy neex la kon. non bokkuñu niveau sax wax dëgg yàlla bokkuñu niveau.

man maay wàcc maa leen gën a diis maa leen ëpp doole maa leen ëpp fit maa leen dàq bëri. kan ak kan. Moussa Ndoyo. Gargawoo. Yékini Junioro Modou Anta ñoom ñëpp. wallaahi aji maa leen man. eh lii neex na de te yomb de. déggoo li ma la xanaa ñooñu promoteur bu bëgg suñu combat demal oo leen wax ak ñoom. foofa yow doo fa laaj xaalis bu bëri. dara. mu doon de balaa dóoru dóore bàyyi faal la de. ka la fi dóor ku fi mu daanta dóor. bari na moom. wax ma kenn. ah Modou moom day xeex. kan la fi dóor. ah yaa ngi seetaan kat. waaw non xaw ma ko mu dóor dama lay laaj. kan la combat ma Yékini Junior daa neexoon. nu mu mujjee. ah la. man dama lay da leen di daan leen. wóor na yàlla dama leen di. maa ne weñ gu dëgër la moom. waaw yow man ay weñ gu dëgër. ah du weñ gu dëgër. <laughs> weñ gu dëgër amul ci làmb ji. Hmm. Ah, ñi nga tudd ñëpp ay ay tàng ay tàng man lañ. billaahi. Yékini Junior. Moodu Anta. Garga Mbossé. Moussa Ndoye. yàlla xam na ne maa leen man ku ma si jël ma daan la. billaahi ku jël ma daan man de loolu ñuy seetaan ñoo ciy wax waaye man day kii waxam ji. dama leen gën a féete ndaw. ëpp leen doole ëpp leen fit. dangu ñee la bon ñooñu waaye ñooñu ñoom bi ñuy bëree maa ngi dem école di ñëw nekk xale bu ndaw ndaw ndaw laa la wax wallaahi si ñoom mook fuuf mais loo xool ci ñoom ba xeeb leen ba jàpp ne da nga leen fit ëpp leen doon ah déet li nga wax kay koo xeeb nga ko a wax xam nga làmb leen ma am cest à nit ki da lay njëkk a bëre moo tax sax mooy toog di leen tudd njëkk dañ ma njiit si làmba ji rek mais boo tegee seen palmarès ak sama des kenn defu ci lu ma deful hmm. ñoom ñëpp taman chaque année muy benn wala ñaar naa ko bëre te ñoom boo xoolee dañuy bëre benn année toog deux ans wala trois ans duñu ñu bëri hmm. kon loolu leer na am na lool moom kenn du ko wax ñoom ñu ngi lay dégg mu doon dana la tontu Yékini Junior noonu Moussa Ndoye noonu Garga Mbossé noonu parce que nag danga jàpp ne ñii amuñu ay fit ñoom léegi yow loolu nga jàpp yow. waa non cest à ku si am fit. mooy parel pour bëree man rek. ku ci bëriwul ak yow amul fit. non ku si bëriwul ak man sa stade bi doo si wàcc loolu kañ moom day leer. yaa moom stade bi yow. ma ku si bëriwul ak man stade bi doo ko wàcc. ah koo ci dogal xalaat na ay ku dina jóg de. waay ma def leen li may def gars yi rek. daal sa guuse bi tax na nga yaakaar ne eh <laughs> dama leen man <laughs> non cest à dama leen man wóor na yàlla yonente bi ñi ma limal ñi ñoom ñëpp maa leen man billaahi maa leen man am na mbër bu dugg si waat sa kër non foofu sa fa laay mais dafa am combat bu fi am bëri ki démb diggante ñàkk jariñu Alioune Seye nit ñi di ko xaar mu ñëw am fu mu mujjee te lu ci bëri dañ naan mbër yi ba tey ñu aj alin Seye 6 mois ñàkk jari ñu ñu aj ko mook égrim atum yàlla dootuñu bëre kañ na moo def affaire moom dootul wàcc ci enceintu lamb à vie yow loolu en tant que mbër koo xam ne dangay ngay wax porteur de voix loolu loo ciy wax ban message nga ciy lancé. non lu ñuy ñaawlu la parce que tey jii ay kilifa rek a fa toogoon te lamb fi mu tollu laajul image boobu mais nag bon aussi lamb moom ku ko xam-xam ne yooyu des fois mënul ñàkk di di wax gars yi ñu gën a jël seen mesure rek man su ma sañoon lan laay sax. cest à dañu war a génne règlement boo xam ne mbër muy jóge sa cumukaay dem ci géew bu bëri amul yóbbu biteel c'est-à-dire nañu sangu lépp si cumukaay ba. loolu moom bëri nga ci ñoo ci bokkal xalaat. nañu dem bëri ji parce que pour man boo préparé combat ay 3 mois ak yooyu yëpp ay ay ay ak yooyu noonu géew boobu bu fa nit yóbbu biteel. amul accompagné amul dara na mbër ma dem. dem na sa entraîneur dar ak sa ménage kese. jeex na yooyu ñuy def si géew bi yëpp boo xoolee géew bi jëloon nañ ay 30 minutes bëri di ko jël bi commencé may 5 minutes. gars yi ku si nekk yaa ngi wàññi cinq minutes suñu tegee ne ñëpp na mbër yëpp sangu seeni i biteel seen cumukaay ñëw bëre dañ koy def wax jee ba rek parce que kenn bëggul bëre ñuy dagg sa xaalis waaw parce que xoolal tey ji ñaxa ka def loolu lor na ko Aline Aline Seye tamit mooy loolu xam nga xam nañ ne loolu loolu sax du tempérament am mais peut-être combat la boo xam ne tolloon na ko foofu parce que moom kenn xamee ko yooyu aussi donc ñu ngi koy déplorer mais aussi CNG ay dagg xaalis yooyu yëpp fajul dara daal pour yow sanction bi dafa war a. di lancer benn appel aussi parce que sanction bi gaaw na aussi trop. boo xool ñu ngi bëri dimanche. lundi mardi gars génn ko. bu ñu defatee recours aussi gars nañ koy def noonu. maanaam daal ñu yemale mbir yëpp. parce que est-ce recours bokk na parce que am na décision yoo xam ne itam defe naa doo xaar da ngay immédiat de. recours lan la laaj comme li gars toog laaj ko waxtaan toog xool vidéo bi li waa ji am lu ko naqari mu contesté day yóbbu recours am lundi lundi bi xanaa mooy foog ñu visionné ko entre lundi ba mardi mais ñu génne ko ci semaine bi mooy boo xoolee yow xam nga làmb mbër day def recours da ngay ñu soog ko jox victoire ñu defatee recours noonu aussi verdict yi mu gaaw. yéen tamit ci seen côté ëppal bi ngeen di ëppal maanaam ñu may la quinze personnes nga dugal vingt wala trente personnes est-ce que loolu tamit yi ñoom la neex. yow xam nga làmb ñoom la neex ku ñu may vingt nga dugal vingt cinq à CNG la neex parce que ñoom ñooy taxaw si bunte bi ay alkaate kenn mënu ko forcer peut-être nag lenn moo leen si neex nga dugal feeñu dagg la cinq yi ñoom loolu moo leen si neex mais stade boobu nañu wax dëgg arène nationale. dagg la cinq ya ah. non mais loolu dugg moo ëpp dañ la kay dagg. ok sa xaalis la ñuy dagg. mais ñoom loolu la neex. kon da nga bëgg wax ne xaalis baa tax ñu ko ñu koy bàyyi wala. stade yow arène nationale suñ bëgguloo nga dugg fa doo dugg. keneen ak keneen ak keneen donc loolu la quoi. mel ni waa police tamit ñu leen di nuyuwaat di leen ziar ñoom ànd nañ dem ak waa CNC bi fekk nañ leen fa ñu jël yeneen mesure pour mbir yi gën a mën a améliorer tegu ci aw yoon. non sport xale moom c'est-à-dire euh, day metti des fois ngay teg ay sanctions mais il faut muy am surtout làmb parce que su mënul am rek maanaam affaire yi du du avancé il faut des fois gars yi du xajaru Alioune Seye kenn ñaanu leen ko yàlla mais imaginer li nga xar jariñu kenn dootu fa bëre ren ah, mais mooy su ma juumul février lañ jëmaat ah mais dafa dafa metti dafa métti écrit ba dañ ciy. bu ci doon avancé itam da nga cay bokkaale. mais instant bi kooku loolu. est-ce que loolu na tamit. non sanction yi man dama lay leen wax dëgg yàlla parce que boo xoolee aussi tamit la ñu yàq ak ñi dagg seen bee aussi ñëpp ñëw yooyu ay àqala ay àqala comme li may wax rek ñi ñu aussi nañu yar ñi ñu àndal parce man pour man nit ki boo ànd ak moom ci làmb waroo ko yàqal da nga ko war defaral man yàllaa ma tiim waxuma pour dara. suma deux derniers combats yi ma bëri yëpp barki alxuraanu karim adversaire bi dañ ma sotti gàllaaj te non parce que dama jàpp lii suma bisu ndam la ñaari yëpp sama combat ñax jariñu sotti nañ ma gàllaaj yow bëri nga ak ñax sotti nañ ma gàllaaj ci biir géew bi mais sama bés la maa ko moom parce que gëm naa lu war a am tey man maay daan sama combat Farouz aussi la même chose peut-être nag du ñëpp man loolu mënoon nekk beneen bés boo xam ne su ma demee ñu sotti ma gàllaaj ma réagir ne neneen xam nga li ma laa yooyu da si am mais man dama jàpp ne bon jour boobu loolu moo waroon am te il faut des fois il faut erreur yu mel noon am pour gars yi aussi tàppe bu baax waaw yooyu de soq sa raq lay bëree lena dugg na fi ñaari yoon daan na Youssou nduur nga daan ko mais nee bi yoon day daan gàmmu gi continuer ca ama neex waxatu sax say wax yow waaw man de wax dëgg yàlla du ma lim suma bopp du ma lim ama neex soxu gàmmu gay lay bëreel incha allah gàmmu gi mooy dugg si biir si mooy dugg si géew ba te ñun lépp loo xam ne mën nañ ko pour gàmmu am ndam ñoo ngi koy def pour gàmmu am ndam ñun loolu moo ñu ñor waaw. kontaan si yow. fii la ëppee